jërëjëf jëf mbokki téléspectateurs yi ñu bàyyi xel da leen ak jàmm ci foire internationale bu Kaolack ren ji nag quatrième édition bi ñu door ko ak cérémonie officielle bu am solo boo xamante ni ñu ngi ko door ci euh, njeexantalu ay bés bi mu nekk foire boo xamante ni du 25 euh, janvier 2019 ba le 10 février 2019 lay amee fii ci cœur de ville bu Kaolack li nga xam ne moo di cérémonie officielle bi amal nañ ko ci teewaayu njiitu jëriñ yi nga xam ne moom moo di Mohamed Boun Abdallah Dionne mu yëkkati fii kàddu yu am solo yoo xam ne jëm na ci Kaolack ak ni nga xam ne noonu lañ ko war a soqalee ñu ànd teewlu kàddu njiitu jëriñ Mouhamed Boun Abdallah Dionne ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci cérémonie officielle bi. Kaolack ak raison bi dafa nekk avenir boo xam ne da incha allah bu ñu yàlla mayee dafa nekk avenir bu radieux avenir boo xam ne suba avenir u liggéey la pour xale yi avenir u xam-xam jot ci xam-xam muy ci diine. wala muy ci école bi bu la ci neex ba ci université au plus haut niveau suba toutes les infrastructures nécessaires dinañ ko def fii ci Kaolack ndax ville carrefour poumon économique du Sénégal émergent loolu laa bëggoon a séddoog yéen pour rassurer leen di gërëm nag suñu jigéen yi jógee Gambie ñëw ba fii Serigne wax na ko sànq ne lu mat 300 commerçantes jóge nañ Gàmbi ñëw pour participer ci foire bi ma ne déwén nag dañuy def challenge nangeen mat junni ndax Sénégal ak Gàmbi du ñu ay frère ak i sœur déedéet ay seex lañ ay seex ñoo bokk deret bokk xel bokk xalaat wante bu ñu màggee ku nekk samp sa kër am déet donc nañ jàppante ne ay seex loolu la président Macky Sall bëgg président Adama Barrow bëgg ko loolu laa leen bëggoon a wax di encourager encore une fois ah suñu doomu ndey suñu xarit Serigne Mboup ni mu bëggee Kaolack ni mu bëggee Kaolack defe naa royukaay la pour doomu Kaolack yëpp mu ngi ciy def loxoom euh, di jàppale en réalité réew mi parce que ku nekk. fa nga baaxoo boo fa dugalee sa loxo nii bu yàggee mu mat incha allah réew mi

baa ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko cérémonie officielle bi. ñëwuma fii pour wax politique li maa wax ni waxi développement la te liñ fi indi itam affaire yi la waaye leena ma ngee woon jigéeni Sénégal ak jigéeni Gambia man suma ministry agriculture nañ def lu ñu mun a def ba gis ne jigéen yi am nañ liñ bugga te dinañ am taxawaay ci koom-koom réew ñaari si si koom-koom ñaari réew yi kontaan naa musuma taxaw si trade fair waaye xam naa ne léegi fu ma degee ne trade fair am na surtout Kaolack kenn du ma teree ñëw bu leen neexee bu leen ma invite waaye dinaa invite suma boppa ñëw taranga bi ma gis bi ma ñëwee fii loolu woon na ne ñii nekk si njiit ñoo ko war soo say ne bu boppa bi nëb li des si yaram du am njëriñ foire internationale bu Kaolack ren ji euh, thème bi nga xam ne moom lañ tànn mu nekk thème bu am solo mooy la valorisation des produits locaux la maîtrise des paramètres de compétitivité mu nekk teem bu am solo boo xamante ni euh, euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa ñoom ñoo ko jël rawatina ki nga xam ne moom mooy promoteur foire internationale bu Kaolack di Monsieur Serigne Mboup moom nag teew na ci cérémonie officielle bi ak kilifa yu bëree bëri moom it am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko fii mu jëm ci taxawaayu foire internationale bu Kaolack waaye Kaolack mu nekk dëkk boo xam ne saa su ne dañ ko war a suqali ñu ànd teelu Serigne Mboup di président chambre de commerce d'industrie et d'agriculture bu Kaolack waaye nekk it ki nga xam ne moom moo taxawal foire internationale bu Kaolack. quatrième édition FIDEA dafa nekk lu am solo. mu nekk loo xam ne nii dañoo bëgg a fexe ba produit yi nga xam ni moom la ñuy bay ñu transformer ko man koo consommer local ñaareel ba ñu travailler ci nan lañ mën a def pour la compétitivité des entreprises compétitivité bi nag dafa am compétitivité dafa am transport am process loolu ministre commerce mi ngi ci taxaw mu aussi foire bi ren ñi ngi am nañ progression de plus de cinquante pour cent l' année passée on avait mille six cent exposants année bi am nañ plus de mille cent et donc je pense que visiteurs yi tamit danañ ko doubler parce que ñi ngi def ay campagne pour pousser nit ñi ñu ñëw ndax qualité des exposants yi fi nekk ci ay qualité produit ci ay qualité innovation lépp a ngi fi vraiment foire bi population bi jàpp nañ ci et en même temps lii boo xam ne nii permettre na décideurs yi politique économique d'être ensemble bu gis tribune bi gis nga fi ñëpp kon Kaolack euh, Gambie nekk na benn bop beneen bi tamit mooy Sénégal comme ni ko président la république di defee mooy boole ñaari réew yi boole ñaari réew yi nag économie def cee ëpp doole su économie bi jaxasoo ñëpp jaxasoo rek yaakaar naa réew yi danañ gën a mën a jaxasoo nekk benn bokk ndey bokk baay. ci bés bi nga xam ne ci lañu amal cérémonie officielle quatrième édition foire internationale bu kaw Kaolack amoon na concours maanaam jongante ci wàllum togg ay GIE ay association yu bëri ñëw kenn ku si nekk proposé benn plat. mu nekk lu am solo loo xamante ni jigéen ñu bëri bëri participer nañ ci waaye nag ginnaaw cérémonie officielle bi ci lañ joxe résultat yi ngir fësal ñi nga xam ne ñoom ñoo gagné. madame joxe résultat yi. bismillah kon ñu ñëw. troisième bi. Mhm. moo nekk association. takku liggéey de Gundam. association takku liggéey bu Gundam. par troisième. deuxième bi. ñoom ñoo nekk sénégalo gambienne. sénégalo gambienne. ana waa Gambia bi neex na. macha allah suppu ko ba mu neex. ginnaaw bi ñu amalee cérémonie officielle bi ci la njiitu jori ñi daal di dagg ruban bi waaye it ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa yi profité ci occasion bi ngir visité li nga xam ne moo di foire internationale bu Kaolack ànd ci ak ki nga xam ne moom moo di Serigne Boub ngir nemmeeku ñi nga xam ne ñoom ñoo di exposant yi waaye it produit yi nga xam ne moom lañ fi exposé. foire internationale bu Kaolack euh, di wéy du 25 janvier 2019 ba le 10 février 2019 mu nekk foire boo xamante ni daañu ci xaar lu toll ci. cent vingt mille 123 075 visiteurs euh, waaye it lu toll ci 591 exposants lu toll ci vingt 26 pays yoo xamante ni ñëw nañ ci foire bi waaye ñu amal ci amal lu toll ci fukki forum ak juróom-ñaar ndax foire bi yewul ci jënd ak waaye am na ay forum ay waxtaan yu am solo yoo xam ne daañu ko amal loole lépp incha allah daañu ci ñëw ak yéen ci yeneen jotaay xibaar ñu leen sant baax di leen gërëm ci teewlu gi leen dig dajee ëllëg jërë ngeen jëf.